barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax biñ del saatee fas yéene ànd ak yéen yéen yi. fayda tidiane yi point com ñuy sant yàlla dina leen waxaal ne eh, xarit niñ ci buggee xarit bu matale noonu lañ bu buggee ci lépp yàlla ci boppam turam yi daf ci am tur yoo xam ne wof yi la bu doon xarit mooy Hamid moo tax Hamid nag waxtaan ti ci fayda tidiane yi point com bokk ci Mawlaay kër Mawlaay Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass defe naa dina yomb du jar firi firi mu yaatu moomu xanaa dañuy jéem a wax njëriñ ba rek ndax ñëpp xam nañ lan mooy alhamdulilah kër pa kër alhamdulillah bu yoomal xiyaame yonent bi bu jógee promit baat boobu laay wax te lu tax yàlla wax ne bismillahi rahmaani rahim def alhamdulilahi rabbil alamin ci diggante bi doog a waxal rahmaani rahim na ngeen jàngal loolu yéen ñi nga xam ne xam ngeen chance di ñu seetaan ci fayda tijaaniya point com ñu ngi ñaanal yàlla xale yi yàlla may leen tawfiq turangoog moo xam ne mooy Hamidou ci lañ nekk tey tur woo xam ne wofi la matale xaal yi kowe na jël yi dafa feeñ képp ku bëri loo koy sikar da ngay mujj am jikko bu rafetlu sa jikko ñaaw ñaaw jaam yàlla yi nga xam ne eh, dañoo dem ba mu yàgg ñu xaw a soog soppeeku ci melokaan ak ci jikko képp koo ci liggéeyal eh, ya xamidu rek soixante-deux la yàlla dana ko jubbanti bu la sa doom jaaxalate daan ah, te xamoon nooy def rek jëfandikoo del jëfandikoo xamidu Euh, de la mooy ñaari àll yo àll yoo boole rek àllu maarifa nga boole ko ñaar mooy yaddan bi yeddin it yaddan bi yeddin mooy teew mu teew yaddan bi yeddin mooy 31 boo ko defee ñaari yoon rek muy xamidu moom rek ngay liggéey mu nekk yaddan bi yeddin teg teggi rek lay teg firi tur wi ba tur yi ba tur jeex nag moom rek moo ci nekk loolu mu ngi nekk 62 boo ko multiplier ci boppam mu ngi lay jox 3846 moom ci boppam nag su fekkee ne da ngay jël xamidu nag Eh, ba tey xam ne bokk na ci limam yi soixante-deux bokk na ci limam yi eh, deux eh, deux cent quarante-huit muy muy Hamidou bokk na ci limam yi moom bokk na ci képp koy sikar te nga def taxaquq nga bugg a def taxaquq doomu aadama boo xam ne lu ñu la wax mu leer ci sa kanam day liggéey Hamidou soixante-deux nag ba tey bu fekkee da nga ko bas moo lay jox deux cent quarante-cinq moo lay jox cent quarante-cinq cent quarante-cinq mooy aljaameo 145 mooy mu ay minu ci tur bi nga ko mën a amee mënoo ko amaat ci dugg nañ ci lim yu euh, yi nga xam ne daanaka mooy diggale diggante tur yi euh, diggante ci 99 euh, yi ñu ngi ci digg bi ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne moo tax jaamu yàlla bu mag boobu dafa toogoon rek ne alhamdulilahi xaq alhamdulilahi xaalaa jameel waraaf alhamdulilahi kooku bàyyi ba mu ko gisee mu ne yéen ñi bokk ci man te xam lii alhamdulilah bu ngeen liggéeyatee Fatiha dee leen ko jàng bu ngeen wirdaatee dee leen ko jàng foo toll sot tëbb mu ngi daw alhamdulilah daal mënuñ cee euh, sori ndax alhamdulilah laa leen ay wax waaye mooy Hamidou te Hamidou mooy alhamdulilah alhamdulilah mooy 148 multiplié ci latif mu jox la lim boo xam ne dootoo ko ba ba ilaa yoomi diin ndax foo bugg a àgg incha allah dana la faagale Hamidou 62 mu yaddan bi yaddin ñaari yoon teg teg gi. alhamdulilah ba tey nga def bastu ko mu jox la cent quarante cinq muy muhayminu muy al aljaamio loolu daal mbir yi defe naa fa la mën a yem li ci des nag fokk ngeen seeti jaami yàlla yi nga xam ne ñoom ngeen dëkkal te ngeen leen a yaatu ci mbir yi waaye alhamdulilah ngoog wala Hamidou ngoog Hamidou moom doy na rek képp koy liggéey sa jikko day rafet ku sa jikko yàqu it ñu la koy liggéeyal bu yàggee sa jikko daay baax yàlla yan na yàlla defal ñu tawfiq defal ñu taysir yombalal ñu lépp. xamal ñu kuy boppam booleel ñu xam ñu hamd ak wilaayatu wilaayatu mooy waliyu ca joge jógee koon hamd mooy sant képp koo xam ne yaa ngi sant rek yaa ngi am li ngay bugg yal yàlla may lu ñu bugg kenn du ñaan yàlla yàlla mayu la ko ngay sant wala nga bugg dara xamoo ko di sant kon moom mooy ismul wahid boo xam ne moom nag ñaar ñaar eh, beneen eh, li ci gën a nekk karaama mooy sosande mooy hamidu baatinu hin mooy hamidu wasalaamaaleykum